asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi bu ngeen jàkkaarloo waatee ak jataay bii ci waxtu wii xel yépp danañ demaat ci bis ba nga xam ne moom la sëriñ tubaa xaadim rasul waxoon ne bisub njëggaluk yàlla la waxoon ne gan gi ci feeñ àndaale na ak njëggal ba ko bisam te dundal ko sun borom jéggal la say bakkaar waaye Serigne Touba mi nga xam ne dafa dégg lool yàlla ya te lu mu mas a wax lépp loo xam ne sun borom mas na koo wax sëriñ tubaa def na ko waaye lépp lu mu mas a wax nag yàlla defal na ko ko yaatal nag xolam bu rëy moo taxoon mu wax maam Thierno na ko sag dem ak sag delsi ku la ci gis wala koo ci gis jéggal nañ ko bokk yi ñiy dund njéggalug yàlla rek la ñuy wut ñi faatu njéggalug yàlla rek la ñuy wut bis bi nga xam jaam yi jege siwaat na mooy ban bis feeñ jamono Cheikh Abdoul Khadir Mbacke bis bu ne ku koy woote daa am loo ci bëgg ak loo cay dàkk bii bis nag daa am luñ ciy jël si liñ jël si mooy lan njëgalug yàlla bis boobu nag gaaw la war a doon di ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru tubaab daje ñetti fan ci tam xarit wi nga xam ne ci la feeñoon jamono moo tax ñu toogaat ci jataay bii Cheikh Mahamadul Moustapha moom Cheikh Abdoul Khadir jëlewaat ndigal ci magam di Serigne Cheikh moom Serigne Abdoul Khadir mi nga xam ne mooy jëwriñu kër Cheikh Abdoul Khadir waaye moom it mu jëlewaat ndigal ci Serigne Touba Cheikh Mahamadul Montaxa mi nga xam ne moo fi toogal Serigne Touba tamate ko sëkk mu waat bokk yëpp nag sii di mi nga xam ne moo yor lépp lu jëm ci wàllu organisation màggal gi teewaat nii ngir ñu wootewaat bis boobu waat bokk yi ni ñu koy defee te waxtu wa nga xam ne bis ba agsi na loolu moo tax dañuy fob kaddu gi jox ko Serigne Lamine Diop mu fàttali ñu ñu Cheikh Abdoul Khadir ci ay way su noppee ñu jox sëriñ alaaji Buso mu ubbil sëriñ bi sëriñ bi fàttali ñu bis bi wax ñu njariñ yi wax ñu nañ koy defee ci ndigalu Cheikh Mahamadul Muntaxa Cheikh Abdou Khadir defoon na sang bopp la ko ñor mooy jaamu yàlla ci sunna si yonenam ci lu bir tegam sëriñ Bamba it jaarit ca yoon wa mu aw jikkoom ya jekk mu yor pas-pas bu rëy ba mu yor feeñam nga feeñal na ay njégal dundam gi itam jagal na mbir ya wonay bindit yu deefi nafar wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin muhammad wa ala wa sallam asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi nu jële ndigal ci Cheikh Sidil Mokhtar bi nga xam ne mooy kaddu kër gi ci bis bi nga xam ne moo jublu si mooy bisub si Abdul Xaadir Mbàkke sëriñ Sidi ci ndigalul sëriñ Moustapha mi kilifaam ak sëriñ Cheikh ak ni ko sëñ bi waxee léegi ak sëriñ Mountakha bi nga xam ne mooy yor kàddug yoon wi nee na mi ngi yëgal bis bii képp koo xam ne kii mbokk nga wóllëre nga xarit nga ab taalibe nga taxaw yañ ci daa taxawe kenn ku ne xam ne fa nga ci daa fare nga fare ci defe ko na nga ko daa defe wala nu raw loolu ndax si Abdou Khadir bisu nit ku koo xam ne kii bésam bisib yiw la boo xam ne bii man bu ko ci taxaw mën naa saafara lépp lu doon jàngoro mën naa dàq itam lépp lu ñu doon tiit ak lu ñu ragal ci bés boobu la te ñëpp nañ ko ci fasaal ci bés boobu incha allah kon mi ngi yëgle ni mboolem mbokk yi mboolem xarit yi mboolem wëllëre yi ñu ngi ko daa yëgal ñëpp ñu ngi leen ko yëgal kenn ku ne fa nga caa taxaw xam ko na nga cee taxaw na caa taxawee te xam ne bisub sëñ Abdou Khadir moom bisub yiw la bisub njëgal la bisub lépp la kon sëriñ bi daal nee na mboolem daayira yi mboolem fédération yi ñëpp kenn ku ne fa nga daa taxaw na nga ci daa taxawee xam nga ko na nga ko yokk na nga ko daa defee ñi doon def xéewal yi itam sëñ bi nee na sëñ dañoo jël ndigal ci Seex taxaa moo waxoon ni képp ku daa def ay xéewal na nga yokk loole ndax buñ ndikkee am na ñoo ñu koy jox ñoo xam ne ñu koy jariñoo kon xéewal yi moom ak njàngam alxuraan mi ak njàng xasida yi moom lépp dañoo santaane mu yokk na mu war a yokkoowee kon kenn ku ne taxawee nga taxaw rek xam nga ko na nga ko def te góorgóorlu ci baax a baax sëñ bi daal mi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal képp koo xam ne kii de bi taxaw nga ci nañ ci war a taxawee yàlla yéwénal seen biir àdduna ak àllaaxira barke sëriñ Touba. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen mbokki jullit yëpp yéen mbokki lislaam yëpp yéen mbokki taalib yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen nuyu ci kàddu sëñ sëñ Cheikh Mbakke mi nga xam ne moo toogee jataayub sëñ Abdul Xaadir Mbakke moom it mu di leen nuyu ci kàddu sëñ Muntaxaa ndax dañoo baaxoo waxtu woo xamee ne si bis bii ngeen doon ñi ma jiitu doon yégle muy bis bi sëñ Abdul Xaadir ganee àdduna fu jege sëñ Seex day dem ci sëñ Muntaxa jëli fa ndigal lépp lu mu ci wax nag moom fas moom képp lañ fas yéene def loola nag ba ci jëlee ndigal xamal na ko ne ko euh, nañ waaw bis bi de mënees na koo def waaye nag nañ ko defee ni ma ko daa waxee rek mooy ñu wattandiku jaxasoo bi wattandiku euh, jataay jataay yu xumb yi te fu ñuy toog fu ñu ñu ne wëy ci ndigalul lañ leen sant ba kenn du lor kenn te ñëpp dañ mën a jariñ loolu la sëñ bi yéene kon nag ngeen xam ne màggal gi ñu ngi ko war a def ci ñaar fukki fan ak ñaar bis bi moom la war a tollool waaye nag dana am soppiku waaye li ciy soppiku nag mooy lii ma leen wax nañ moytu uh, uh, mbooloo mu daje mi ci benn barab di mbooloo ak ak lépp loo xam ne si day indi uh, dox te yoroo liñ digle te mooy li ñu sëñ bi digal ci jumaa ji rek yooyu yëpp ñu sàmmanteeg moom bu ko defee nag waaye nee na njàngum alxuraan moom ak ak ak ber bernde yi luñ ci man ak jàngum xasayda moom luñ ci mën nañ ko def loolu kon nag moom lañ ne woon nañ leen ko jot li fu ab bi ne mu yëg ko ndax dafa jaaru ci bis bi jotee waxtu wi jot ñu fàttali leen bis bi nga xam ne ci la ñu yàlla may sëñ Abdul Xaadir Mbàkke sëriñ bii du wax ca lam ci waxoon bis bu bu jotee jaadu na ci ñu fàttali leen ne la bi waxtu sàngam la muy ñaari fan ak ñaar ni kon nag yàlla nañu ci yàlla àggaleeg jàmm te yàlla nañu yàlla tawféexal ñu defee ko ni ko sëñ bi diglee te daje ceeg ngërëmul sëriñ Touba. ba ñu ci daa daawut lépp ñu mën ko ci amee bu ko defee nag ngeen xam ne moom mii nga xam ne moom lañuy màggalal bis bi da doon na koo xam ne eh, eh, wax dëgg yàlla ku ko mësaa fàtt gis rek daana la fàttali yàlla mm-hmm. waaw <coughs> seen jëmmam rek sa dana dem ci yàlla loolu nag li ko mayan mooy dane woon eh, nocc rek ci istiqaamatu ne woon nocc ci sunna Euh, te te te ci jóg benn yoon te wa axbaroo bi anna al istiqaama nihaayatu salaahi wal karaama ni istiqaamatu dafa jafe jafe jafe ba sëñ bi nee na xar baax ak baax ci boppam sax ci jug mooy mooy mooy mooy dayab xar baax mooy dayab mooy baax ndax dafa jafe mu nag yàlla mayee na ko loolu kon nag ko yàlla na nu yàlla taas ci barkeem képp koo xam ne ñëw na ci képp koo xam ne si ñëw na ci eh, bisam bi wala nga foo ci ne nga jàng fa la nga ko jàng yéene ko ko yàlla na ko ci yàlla jotale bu ko defee bu ci jotee rek ñun ñii yàlla mën nañoo faj suñu aajo moo moo tax ñu ngi soññ njàngum kaamil mi fu waaye mën a ne ci biir réew mi ak ci bitim réew ñu ngi leen di soññ ci njàngum alxuraan mi di leen soññ ci njàngum eh, salaatu ala nabi yi di leen soññ ci njàngum xasaayit bi ndax xasida yi sëñ bi lépp ngi ci di leen soññ it ci euh, jàkka ji nga xam ne bisub euh, bis ba daana am ñu fi daje di fi jàng alquran xasida moom it ñu leen ci soññ bu ko defee nag buñ noppee ci loolu nañ ñaanalaale réew mi euh, li naj taasa asmata corona almustajidda wa tadahiyatiha <laughs> ndax kat ku ci ne xam na ne tënk na nit ñi kon nag yàlla na nu yàlla dimbali alxuraan ñaan mën na lu ne ñan sëriñ bi yii rek la ñu santoone kuy ñaan bu ko def wala takun mustahjilan wala taqul lam tustajib lii dahwati wala tamal yett yi bul yàkkamti booy ñaan bul eh, bul wax wuyuwuñ ma booba tey maa ngi ñaan waaye kenn wuyu ma bul yokkat suñ tubaa nee ne ñett yi la ñaan bañ wal takku fii saabitan na nga ci sax rek ndax ndax eh, loolu alxuraan da ko indi te daanaa dégg sëñ Abdou Khadre di ko netti ba tey wa qaala Muusa rabbana innaka aatayta firxawna wa mala'ahu zinatan wa amwaalan fi lxayaati dunya rabbana liyadillu an sabilika rabbana natmis ala amwaalihim washdud ala quluubihim falaa yuminuu xatta yarawu ladaaba alalim qaala qad ujibat dahwatukumaa fastaqimaa wala tatabihaanni sabila alladina laa yalamuun Muusa ak Haaruuna ku ci ne dañoo daje ñaan yàlla ne ko firxaw na ak waa këram nanga far seen alal dëral seeni xol ndax xam naa ne gëm moom duñ ko def fig mbugal ñëwut seen kaw ba mu ko waxee saa borom dane nag xat uji ba daxawatukumaa wuy naa leen nga xam ne ñaari yonente ñoo bokk di di bokk taxaw di ñaan Muusa daxa wa Haaroona amana watta aminu mina duhaay Muusa ñaan na Haaroona ni amin te amin ci ñaan la bokk mm-hmm. waaye téewut ba leen yàlla nangulee ba ne nangu naa ñeen fukki at la ñu am soog soog arbaxiina sanatan la ñu am soo ko gis résultat bi kon kuy ñaan yàlla doo ko yàkkamti doo ko forcé waaye ñaan ko li nga bëgg te dogg ca ni ko sëñ bi bi xas bi xas min ba tamaam noonu la sëñ bi jàngale kon yàlla nu yàlla dimbale ñu am dégg ak topp te yiw bis bi yàlla na tasaaroo ci réew mi tasaaroo ci réew yi ba jàmm ak xéewal ak yusru ak tawféex ni ko borom amee woon nga xam ne boo jàqee rek boo ko boo ko gisee daal di am faraju mm-hmm. yàlla nan ko yàlla defal ci daraja am ndax yàlla man na lu ne mm-hmm. xasee farajun yaati bihi llaahu innahu lahu kulla yawmin fii xariqati amul mm-hmm. mbas lee yàlla daal ñuy indil wuñu njàqare ndax yàlla moom kulla yawmin huwa fi sanin bët bi set am na lu mu dencal ay ay ay jaamam wa kullu haamin wa antum bi xayrin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi jërëjëf mbokk yi ñoo jot a yi bàyyi koo ci Cheikh Mouhamadul Moustapha ibnu Cheikh Abdoul Khadir Mbacke mu jëlee ko ci kilifaam di magam di Serigne Cheikh moom Serigne Abdoul Khadir waaye lépp nag bàyyi ko ci Serigne Touba Cheikh Mahamadul Montaxa mi ni ñaanal yàlla mu yàgg fi lool te ànd ko wér mbokk yi kàddu yi mat na sëkk Serigne sii di rek di ci dolli xamle ne ci ndigalul Serigne bi yëngutu yin ci daan def mu jëm ci wàllu cérémonie ak la nuru ak conférence bi nga xam ne sët yi daan nañ ko def yëpp dañ koo dugal ca bis ba rek mu dëppoo ak ko Serigne bi digle. waaye sëriñ bi di wax ne nañu jëfandikoo sabab yi te wàkkirlu ci yàlla jëfandikoo sabab yi mooy li nga xam ne nguur gi teg na ko ci wax ne nit ñi nañ ko jëfandikoo ngir mën a mucc ci musiba ci saayir mu di fu waay di dem nga yor li ñuy wax ab masque tey raxasu ba set tey jëfandikoo sel sëriñ bi nee ne mi ngi digle képp foo waay mën a nekk ci màggal gi nga jëfandikoo loole waaye di santaane it nag ne ñaan mën na lu ne ni mu ko waxee kon nag màggal gi bu dee ne ab daayira la buy siyaara si sëriñ bi nee na nañ ko def mbooloo mu yam bu ko kenn mu ne andi mooy la ca gën bu fekkee ne nag ku sori la cam bëgg addiyaam dugg ci biir liggéeyub Cheikh Abdoul Khadir xam na fa mu ko daan jaarale kon jiili yaa ngi taxaw fédération baa ngi taxaw bis bi daal sëriñ Mountakha nee nañ ko dundal waaye buñ koy dundal it nañ ko defee nii mu ko waxee waaye bis bi kenn mënu koo ñàkk dundal ci jàng alxuraan jàng xasida def ay salaatu ala nabi ak bernde ak ñaan yàlla kon nag le 22 lay doon di gaawu sëriñ ba nee mi ngi ñaan képp koo xam ne yëngu nga ci ak noo ci mën a feeñe yàlla na sëriñ Tuubaa faj sa aajo ci barkeb Cheikh Abdoul Khadir wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Cheikh Abdou Khadir defoon na sang bopp la ko ñor mooy jaamu yàlla ci sunna si yonenam ci lu bir tegam sëriñ Bamba it jaarit ca yoon wa mu aw jikkoom ya jekk mu yor pas-pas bu rëy ba mu yor feeñam nga feeñal na ay njëgal dundam gi itam. jagal na mbir ya wanay bindit yu deefi nafar